salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu 2STV la télévision autrement ni ñuy amee mbégte saa su ne teew fii jàkkaarloog yéen ci seen émission amul nëbbo ñuy profité nag ci occasion bi pour souhaiter leen une bonne et heureuse année 2016 atum ren bi euh, yàlla na dàq at yi fi weesu mu doon xéwal ak naataange ci réewum Sénégal nekk tamit xéwal ak naataange ak jàmm ci àdduna bi ndax jàmm ci la ci la lépp xaj ñu leen di gërëm di leen sant aussi parce que ñu ngi jot message yi nga xam ne yéen a ngi koy envoyé di féliciter ñii di joxe ay euh, critiques ah mu nekk ay critiques yoo xam ne euh, yoo xam ne soit c'est des critique yoo xam ne day euh, yokk xalaat wala bokk euh, yoo xam ne mën nañoo joyanti ci li ñuy def yépp ñu ngi koy jël en considération ba seen émission amul na boo mën a demee ni ngeen ko bëggee parce que yéen rek lañ fi nekkal te ni ma ko faral di waxee amul na boo fii la lépp di leeree ba tax na tey dañu dalal ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue Gaston Mbengue nag boo ko déggee moom membre la ci Grand Parti Grand Parti mooy parti bu bees boobu nga xam ne kii di Malick Gakou moo ko waaye nekk tamit euh, président du club de football bu Njàmbur waaye tamit moo yor li nga xam ne lépp lu aju ci wàllu euh, promotion ak euh, li nga xam ne moo di marketing wu équipe nationale bu football rawatina fédération bi ci boppam sax lay wax moom moo ko yoree danañ ci dugg moom ci waxtaan boobu xus ceeg moom parce que tey dinañ gis beneen Gaston Mbengue boo xam ne xëy na sénégalais yi faraluñ di ko gis parce que ci làmb rek xëy na lañ ko gën a miin waaye am na yeneen facettes yoo xam ne xëy na Gaston làq na ko tey nag amul na boo fas yéene na ko leeral ba ñu koy wax rek rek euh, salaamaaleykum euh, Gaston. maaleykum salaam euh, Amadou maa ngi lay nuyu di la ziar ci gàmmu gi génn. di nuyu El Hadj Ndiaye borom kër gi di nuyu waa 2STV bi yëpp kër gi sama kër la. di nuyu personnel bi yëpp. di souhaiter ñëpp aussi mais meilleurs vœux de bonnes et années. di ñaanal kër gi jëm ca kanam. di ñaanal sénégalais yëpp réew mi ñëpp di leen ñaanal jàmm. jàmm am ci réew mi parce que jàmm ci la lépp xaj comme ni nga ko waxee nag euh, ñun amuñu dara lu ñuy nëbbu Gaston de nature mosu la nëbbu sax dara mosu la préparé émission mosu la nëbbu dara li may wax rek yàlla ma ci yàlla suturaal ba duma ci def benn erreur ci itam mu nekk loo xam ni dëgg rek lay doon te mu neexit Sénégal yëpp waaw loolu moo am solo Gaston Mbengue wax naa ko ci euh, ndorteel li nee naa membre yo ci grand parti grand parti nag boo ko déggee mooy parti bi nga xam ne kii di euh, Malick Gakou taxawal na ko gannaaw ba mu génnee AFP mhm. yow nga nekkoon parti socialiste ñu xam la fa lan moo tax nga jóge parti socialiste waaw jërëjëf euh, parti socialiste dama ci gisatul bopp et puis pour man euh, parti socialiste amatul parti de contribution la parti buy soutenir beneen parti la donc. Euh, socialist partie de contribution de contribution la yëgatuma ci sama bopp et puis euh, pour man ambition amatu fa parce que partie day wut pouvoir ñoom ragal naa ni utuñu pouvoir am nañu nag droit jàppale et puis que politique opposition def ci baax pour mën a pousser le pouvoir que ñu yokk seen li ñu doon def parce que ku dul juum amul pouvoir bi fi nekk liggéey moo leen tax a jóg waxuma ñu def opposition radicale yooyu di xuloo di saaga di xaste mais au moins opposition constructive parce que tey su nit ñi gëmee nii yàlla mooy fal yàlla mooy fal président de la république su yàlla falee un président de la république donc nit keneen ku yaakaar ni yàlla mën naa fal ëllëg donc waroo yàq li ki nu fal tey di def. waaw mais boo nee parti socialiste amatul ambition te ñoom ñu taxaw teel a wax ne. ñoom dinañ am candidat. naam waxaguñ kan mooy doon candidat bi mais nee nañu dinañ am candidat. mais man mënu ko gëm parce que parti socialiste daan teel am candidat parti socialiste moom la nit ñi daan gën a xàmmee ci politique gu Sénégal waaw daawuñu yeexantu daawuñu léewtoo te fi ñu nekk danoo nekk ci léewtoo boo xam ni personne ne comprend et que vraiment bëgguma ci sax di wax comme nekkatuma fa euh, parce que man. parti socialiste nag attends tey su ma neexee sax mën naa fa génn man parti socialiste mosu développé ma dara nag man mosu faa wut poste mosu maa nekk député mosu maa nekk ministre mosu faa nekk dara bugguma faa nekk dara parti socialiste dama ci juddoo fekk fa sama papa fekk fa suñu famille sama sœur nekk fa di euh, responsable di ne sax numéro 2 ba donc loolu nag jotewul dara ak politique parce que ñoo bokk ndeeg bàyyi mais ku ne war ngaa mën a am sa idée d'agir tey Sénégal ñu bari defoon na ni même làmb yi may tëgg defoon na ni parti socialiste damay finance par ma xamal nit ñi par ñu ngi may kenn ëpp ma fa nag action ci yaat parti parce que lu ne def naa ko fa lépp loo ma sa liggéey sama doole yëpp ma def naa ko fa ci ay moyens ñu ngi may dégg na bëtuma ci télévision lay waxe waaw loolu daan ci en retour mësuma faa jëlee dara mësuma am marché mhm. tey parti socialiste toujours muy parti socialiste di parti Ablaye Wade même di parti Macky bi defar li ma gën a déploré ci àddina ñu defar nañ fi ay nit yoo xam ne ay milliardaires yoo xam ni ñooñu bi may am million amuñu cent mille francs te ñoo leen defar ci ñu ñu ñu defar du ñu jóg mukk di leen xeexal ci dara kenn xeexalu ci Macky Sall kenn xeexalu ci Ablaye Wade ñu ñu defar laa wax lu dul toog di leen wax lu leen neex di am ay occasion di jëli marché di teg ñun liggéeykat lañu man réew mi nag attends def naa fi loo xam ni su ko sénégalais yëpp defoon xëy na réew mi du am problème parce que fi ma féete woon ci gox bi ma féete woon muy ci sport muy ci commerce la ma ci war a def def naa ko. waaw balaa ñuy dugg loolu di xuus ci waxtaan bi dañ bëgg ñu toog toujours ci parti socialiste parce que dañ la daan dégg. nga ne parti socialiste dee rek moo ma fay jëlee. waaw waaw mais dem naa ba ci dem ba ci biir. waaw mu wóor ma ni yëf yi ñàkk de sax lay nuru parce que nit nag ànd ak moom aussi bis a tax mais su fekkee ni yow saa yu nuy wut dara nga ànd ceeg ñoom di leen ko wutle yow bis boo xawee nekk ci jafe-jafe sax ñu demoo la wala doon la sa xam wala ñiy ànd ak ñoom du man rek de ñu bëri meranu parce que ñu bëri ñu ma xam ñu daan jàppale parti ku ci yéeg ci escalier ba ca kaw da ngay bëm ak échelle ba mu daanu def nit ñi comme ay chiffon donc man loolu laa ni tey dund naa ba am soixante-cinq ans dootuma ko nangul kenn waaw Gaston aw ma nag seen wërsëg aw ma nag seen bien Gaston kan la mere parti socialiste la mere wala njiitu parti socialiste la amal problème. non man aw ma problème kenn seen comportement seen système de d'évoluer la mere parti socialiste mënuma mere njiit lii dafa am sœur ñu bokk ndey bay baay tey ma yéene kolu lu nekk tey malgré que na parti socialiste mais tey fépp fu ma mën a taxaw na ma daan taxawee ci kanam lay taxawee ci kanam ak fu ma mën a nekk nag. dama daan taxaw ci kanam lay taxaw ci kanam mais du man maay taxawati di nekkat ak parti socialiste euh, je respecte très bien ma sœur mi ngi évoluer ci biir parti socialiste yàlla na ko ci yàlla dimbali mi ngi mi ngi évoluer même ci biir pouvoir bi parce que moom elle est loyale lépp lu demee ba accepté pour liggéey ak Macky Sall da koy def à cent pour cent day fàtte sax boppam loolu lañ ko xamee ñu loolu lañu xamee mais man tam am naa droit évoluer ci yeneen sphère fu mel ni grand parti nga xam ni Malick Gakou sama rakk la sama rakk la ñëpp xam ko booba formé gul sax parti bi mu meree ñu tooñ ko moom itam ci parti fu mel ni AFP ñu tooñ ko ñëpp xam ni dañ ko tooñ Malick Gakou di taalibe taalibe sëñ Touba nag ñu tuddee ko Alaaji Malick ñëpp xam ne kat la Sénégalais yi xamaguñ ko sax mais économiste la jàng ba ne ar réew mi kenn pu ko fi lijaasa xëy na nag bokkul ak politiciens yi nga xam ni dañuy xuloo di xeex di saaga nekk ci plateau yi di wut buzz. di xastante waaw waaw balaa ngaa saxar mi suma lanc mhm. Malick Gakou moom danañ ci yegg si waaye. Mhm. pour ñu jeexal ci parti socialiste. Mhm. ba nga ne cëpp ndakaaru yow Gaston. nekk gone. Euh, bootu ci ginnaaw parti socialiste. bootuma Sénégalais yi ne dañ laa jàppale ba nga toll fi nga toll tey nga bëgg a weq parti socialiste. non ba mësuma bootu ci parti socialiste parti socialiste mësuma jàppale. kii jàppale nit mooy da nga koy jox marché demoon nan ba defee ni même lamb yi may tëgg participation may financé mo suñu ma jàppale képp ñoom ci télé lay waxee ba nga soogee teg sa tànk ndakaaru jaay wàcce ndakaaru fii ba ne la ñaari ginaar laa fi wàcce ak ëmbu gerte dégguma ko ñaari ginaar ak ëmbu gerte laa wàcce fii ñaari ginaar waaw ak ëmbu gerte gerte laa wàcce Dakar nga wàcce ndakaar jóge Louga waaw nekk ambulant waaw moo tax may sa sa ñaanal ambulants yi ci di leen conseiller ñu gëm seen bopp mm-hmm. parce que fii ñu fi nekk ñëpp muy jilim mbaye ki ñu a kebe képp ku fi tekki jaar nga foofu mm-hmm. ñu bañ am benn complexe liggéey tax leen a jóg man liggéey ma taxoon a jóg mm-hmm. ñu liggéey may liggéey la ma doon liggéey di ci am itam lépp lu ma ci matériel mën a dimbalee parti socialiste muy ci matériel muy ci lu ne def naa ko ba tey ñoom xam nañ ci dara c'est-à-dire Sénégal moom léeg-léeg euh, soo xuloo ak nit sax mënu maa defal sa jabar sax soo xuloo ak moom nu ma soo maa defal dara kooku sénégalais sa sénégalais mais ñoom loolu moom ñi mun ko wax fu nu ko waxee it ma waxaat waaw. bu ñu la déggee daal yaa def ci parti socialiste. man maa ci def deful mais parti socialiste deful ci yow dara deful ci dara. mosuma ñu jox sama doom bourse sama doom yëpp bitim réew la ñu jàngee maa leen fayal. Mhm. mosu leen jox liggéey mosu nu maa fayal bor mosu nu maa defal dara. léegi nag sumay may magub jëm il faut que les gens les gens euh, nit ñi changé xanaa doo topp nit rek di defal di ko defal tey su fekkoon nii man rek la wala sama sœur rek la aw ma problème parce que man sama sœur mën na maa defal lu ne war naa ko mën a defal lu ne moom war na maa mën a defal lu ne mais nag parti bi parti bi la te nag xalaatuñu kenn lu dul seen bopp mm-hmm. te loolu Sénégal gépp xam nañ ko mm-hmm. tey Macky Sall mii ñu topp Macky Sall mii ñu topp Macky man mii la doon sama xarit man mii la doon sama rakk ku ma ci masa woo ni damay indi Macky sax da ngay bañ. waaw léegi ñëwal ci Malick Gakou. tey nag euh, non de seguñ foofu mais. ñëwal ci Malick gàkku d' abord. Mhm. Malick Gakou créé parti nga jóge parti socialiste choisir parti Malick Gakou. Mhm. xaw nga ko junj sànq mais lan moo la booleeg Malick Gakou. moom Malick Gakou sama sama rakk respecté ma jox ma sama cër. sama xarit man su may ànd nit du alal lay àndee moom dama gëm sama bopp liggéey laa xam ak lu jafe-jafe-jafe bari dara jaralu ma yéexeer valeur yooyu laa gis ci Malick Gakou moom itam dafa juddu nekk bi muy juddu la yaayam génn àddina maamam jaay gerte caaf mu nekk di reyante daj lu ne à sept mu commencé di dem Touba ñu tuddee ko Alaaji Malick ma ànd moom tubaa ci sëriñ euh, kii Bousso bi nga xam ni moo doon moo sutoon rek ci sëriñ Touba mu jébal ko boppam ñu nekk fa ma dégg lan ko fa wax ñaan yam fa ñaan ca ma ni ma Malick ni ma gis nga ñaan yi depuis sept ans ñu ma koy ñaanal ca maa ngi sentir ni maa ngi yëg ñaan yi maa ngi sentir ni maa ngi jot ñaan mm-hmm. muy taalibe sëñ Tuubaa di trondoo Laaji Malik jàng am ay idée ay idée yoo xam ne mën na jëmale réew mi kanam waxtaan ci ma xam ne lii it mën na jëmale réew mi kanam parce que man du ma dof xëy na duma ma ministre du ma député nekkuma ci bopp réew mi mais lépp luy avancé loo réew wala yu ma xam wala luy avancé loo nit xam naa ko mm-hmm. ma xam ni kii su jotoon ci réew mi dana changé lu bëri mais nag eggaguñu ci jot ci réew mi ku mel noonu waxuma ni waxaguma ci jël ñun réew mi parce que nag man du ma politicien yooyu wala sénégalais yooyu nga xam ni dañuy taxaw di ŋàññi pouvoir bu ma ŋàññi pouvoir parce que Macky Sall mënuma ko ŋàññi ndax sama rakk la dama nekkoon ak moom di defanteeg moom malgré que nekku moon parti booba pees la nekk. waaw lu la tere woon dem APR kon. booba Abdou Diouf jóge na fi Abdoulaye Wade fi nekk. Mhm. ñu tooñ Macky Sall bi may nekk moom bi muy nekk premier ministre xaw ma ko bi muy nekk euh, président de l' assemblée xaw ma ko bi mu bi ñu ko indilee ay injustice difficulté te man loolu laa gën a contre ci àddina ci laa dem sës ak moom sës ci moom rët. Mhm. mënoon naa dem APR mais déwuma fa damaa resté sama parti mais ànd ak Macky Sall di ko soutenir mhm. mu mu amoon mu am ay idées yu baax la amoon muy waxtaan. mu amoon ay idées yu moo koy moo soutenir ko Malick Gakou mii sax soutenir na Macky Sall. moom Malick moom Malick Gakou waaw. te boobu pourtant amoon na candidat. Mm-hmm. parce que tey ay idées yu wóor la moon yu baax pour liggéey réew mi tey xëy na idées yooyu ba léegi jeexul mais nag léeg-léeg da nga toog ñu wër la ay anciens politiciens yoo xam ne depuis avant 1960 ba léegi ñu ngi fi nga xam ne dañu périmé. au lieu que mu teggi leen teg fële ànd ak ay moroom jeunes yi ñu liggéey Sénégal mais itam. même su leen mën la dàq mag ñooñu ñoo war a am dignité am fulla ak fayda bëgg seen réew ni ko président ñun léegi dañoo bëgg toog fee rek soo soxlaa conseil ñu jox la ko yeewi ko parce que xëy na bëggu leen a euh, ñàkkal fayda wala bëggu leen am na rus gu nekk ci moom parce que ay kilifaam lañu ay waajuram lañu mais nit ki nag soo nekkee mag yaa war a am xel ñëw ni sa doom léegi man li ma doon def naa ko léegi yow yaa ngi fekk say morom ànd leen ngeen def ko tey ñun nekkuñu fii pour di ŋaññ tey su suñu amee idée je loolu laay wax Malick toujours mhm. soo fekkee ni gëm nañu ni yàlla mooy fale suñu gisee lu baax Macky Sall c'est ton mën nga ko woo wala nga seeti ko nga jox ko idée yooyu mhm. su ko defee baax na su ko defee nit yow nga quitte ak sa conscience ëllëg si biir su ko defee wala mu def lu gën lim fi fekkoon xawma kañ lay doon su yàlla tuddee ne ñooy nekk président ñu war koo remplacer ñu war a remplacer Macky Sall xawma ren lay doon xawma déwén lay doon xawma kañ lay doon su ko yàlla tuddee su boobaa dana ñëw fekk mag yi liggéey ba nga xam ne ñun suñu ñëwee it dañuy tàpp dañuy dérouler rek tàpp bi parce que nag Macky Sall mérite bi mu am mooy que amul complexe parce que bi mu ñëwee fekk Ablaye Wade def fi ay chantier parce que Ablaye Wade aussi du mérite def na fi ay yoo xam ni ubbi Sénégal Macky bi mu ñëwee tegu fa sànq yi dafa eggale yi ba pare di continuer di def lu li nga xam ne Ablaye Wade amoon na ci bilan bu satisfaisant mu continuer di ko def pour bëgg a def lu raw li Ablaye Wade defoon. ñun itam bis boo xamee ni Macky Sall def na mandaam wala ñaari mandat yàllaa xam ndax mun la passé ñaari mandat su ko cee yàlla jàppale ba mu àgg ca ñun suñuy jël danañu ñëw fekk moom itam. mu defar def tapis rouge ba nga xam ñun ñun suñu ñëwee dañuy déroul rek di dem. waaw mais mais Macky Sall boobu wax nga ko sànq nee nga jege woon nga ko trop jamono yi jafe-jafe. Mhm. mu mel ni rek bu ma déggee sa wax Macky Sall jamono bi muy nekk euh, opposant mhm. nga jege ko. waaw bi mu nekkee président bu fekkee dégg naa la dafa mel ni jege woo ko. waa jegewuma ko parce que xam nga politicien rek xam nga gars yi sunu euh, su sunu euh, su nit faloo. Mhm. ñi nga xam ni jege woon nañ ko ca daan waxante dëgg ci nga xam ne nitu dëgg rek lañu duñu bëgg mu jege parce que dañuy wax ni kii su fi toogee dana fi wax dëgg xam ni mën na noo dàq fii da ngaa a wax ne ci wetu Macky ñoo xam ne ah, non yàqkat bari na bëgg ñoo genre genre Gaston Mbengue yi jege genre Gaston parce que man bi may nekk ci kër Macky ñuy gisee bis bu ne ñi ma fa fekk mooy Alioune Badara Cissé Mbaye Ndiaye euh, Mohamed yi euh, Diène Farba Sarr ay Abdou Mbow euh, ñooñu la fa daan fekk ñi nga xam ni vraiment Mor Ngom ñu ñu nekkoon ay proche bu Macky Sall xam ni saa yooyu ñëwee fekk leen fa mais ñi ci des te daan dem fii di dem fay foo dem fekk leen fa ba Macky jëlee nag tey ñu ñëw uuf ko dàqal ko ñi nga xam ni ñoom laa laan doon mais amul problème parce que Macky xam na loolu xam na ni man mooy sama président de mooy président sénégalais yëpp mais xam na ne magam la gisewuñu depuis booba ba ci fan yi gise nañu sa rakk ja mu nekkoon mu nekk ko mais teewul man maa ngi grand parti yàgg ak Macky Sall gise ngeen waaw gise nañu gise nañu amul amul amul trois semaine lu ngeen waxtaane suñu waxtaanu bopp la du wax kilifa doo waxtaan ak moom di ko tas mais suñu waxtaanu <laughs> bopp waxtaan fi mooy amul na boobu mais loolu danaa ko nëbb waxtaanu kilifa il faut nga wax ñu ci tuuti quand même waaw mais waxtaanu wax wax ju rafet rek la ñu wax hmm. vraiment hmm. waxu xamal ma ni ma sama mag nga fanu jaar yëpp bukki ko mais itam euh, wax expliquer ma xam ni aussi comprendre naa ko réew dafa diis te il faut nga am ñu la mën a dimbali rek ñoo la mën a nit ñoo la mën a dimbali pour nga bañ a déraper mais aussi kilifa su demee ba dellu si xam ni kii nitam la woon magam la woon xëy na ku dul juum nag amul am na benn silence bu amoon ñu dem ba retrouver loolu sant yàlla la. kon daal mën nañ ne mag ak rakk dajawaat nañu. mag ak rakk dajawaat nañu. est-ce que mën nañoo xaar kon ku mel ni mag euh, Malick Gakou soutenir Macky Sall. non Malick Gakou candidat la. maa Malick Gakou candidat la candidat la la ñuy lan euh, nekk candidat nag teewul bañ a soutenirante ñoom ñaar man mën nañoo soutenirante parce que comme gëm nañ ni yàlla mooy fal mën nuy waxtaan di communiquer pour lu jëmalee réew mi kanam xoolal Ablaye Wade dafa dafa confronté woo Abdoulaye Abdou Diouf pendant trois ou bien quatre hmm. mu metti lool dëkk bi tàkk tout le temps ay tàkk ay jàpp ay tëj hmm. ba mu ci sonnee dafa ñëw ànd ak Abdou Diouf dar ko rek nekk ci wetam xëy na nax da koo nax xëy na kii mais dar na ko daal ba jël ba jël pouvoir bi ci loxoom. Hmm. ànd ak moom di liggéey sax ci ma waxuma ni Malick Gakou day liggéey waat ci gouvernement no soxlawul loolu loolu gaa taxu ko jóg. da ngaa bëgg mu dar Macky ba jël place am. non non pas pas dar pas dar mais de toute façon communication moom il faut muy am. Hmm. parce que tey man muy sëriñ bi di xalif général bi di ak ku mu mënti doon. képp ku fi nekk da ngaa war di wax loo xam ne day jëmale réew mi kanam mais kuy wax luy yàq kuy xaste rek koo xam ne safaan ba rek ngay wut tout le temps kooku moom soxla soxlawuñ ko ci réew mi réew mi tollootul foofu. waaw est-ce que gis nga benn rapprochement bu war a mën a nekk diggante kii di Malick Gakou ak Khalifa Sall. mais ay ay xarit la ñu Malick Gakou Khalifa Sall même Khalifa Sall ak Macky Sall ay xarit la ñu ah. Hmm. c'est que léeg-léeg. ku ne da nga défendre sa point de vue walla nit ñi yokk wax ji kii wax ji mais ay xarit lañu Khalifa Sall ak ak euh, Macky Sall ay xarit lañu Khalifa Sall ak Malick Gakou ay xarit lañu euh, nit ñi nag ñoo dul bàyyi. waaye nag politique ab ah, politique moom amoon xarit. ba mais politique nag. parce que ku ci nekk sa intérêt ngay jiital mais mais Amadou. politique il faut pas ñu koy def affaire ennemi aussi bañante. barki démb gis nga fële ca France bi affaire Saint-Denis bi amee. Sarkozy moo jóg dem ba ca palais ba di durant tous ces jours la muy ànd ak euh, Hollande mm-hmm. mais politique su fekkee ni réew mi pour xëccoo ko il faut ñu nekk ennemi mais c'est pas la peine parce que nag ñi koy xëccoo gënu nunu ñi koy xëccoo gënu nunu président gënu. dañoo war a gore ànd ak def yëfu l'islam def yëfu ngor xam ne nag. Euh, comme ñoom li ñuy wax su fekkee ni dëgg ci ñoom parce que moom toujours ñu koy chanté yàlla mooy fale effectivement yàlla mooy fale mais da ko war a gëm jiital nag réew mi aussi jiital intérêt population yi liggéey pour population yi nekk euh, tedd population yi coono gi teggeekunu mais suñ fi nekkee tey ku yor réew mi ñu xeex la di xeex xuloo xeex ci rajo yi ba liggéey nit ñi taluñu liggéey kenn talul dara mais xiif gi nekk fi mais dañuy sonal population population yi la ñuy sonal ñun ñoo ciy sonn te ñi nga xam ni ñoom ña nga ca kaw ñoom xëy na duñu yëg sax coono bi donc ñun ñoo war a am xel bañatee accepter les opposants radicaux la nga xam ni dañuy nekk rek seen tey du danañ tam nit ki dëmm danañ ko jëñ sàcc lu ne ñëw defante ko pour lan pour seen intérêt bopp ak seen intérêt famille c'est pas normal man tey ñun ñaan nañu yàlla Macky Sall ci mandat mi mu def ci liggéey Sénégal benn dañ koy ñaanal yàlla na mu liggéey pour pour population yi bëgg population yi gis ci njariñ su paree liggéeyam yëkkati jox ñu passé nu service. ñu euh, ah, pa déet passation service moom amu fi. moom élection ngeen di. mën a élection la ñu jëm non su may wax passé service. <laughs> mooy ñu gagné élection ya que ça soit 2017 que ça soit 2022 parlant de de 2017 2019. waaw yéen waa grand parti ban ngeen ciy préparé 2017 wala 2019. non man gëm naa ni élection yi 2017 la parce que nag Macky attends. 2017 nga gëm yow. man de Macky Sall ba ma xamoon Macky Sall bi ma xam homme de convi conviction la su benn mbiru naafeq amul ci ay référendum ñu koy jéem a yóbbu moom 2019 parce que su boobaa dootu ci man dara ndax su référendum su amee même moom su bëggoon 2017. suñu defee yëfu naa fexe ba fexe ba mu dem ba euh, ñu. Euh, non naa fexe kay du ci am population bi. ñooy décidé bu population bi décidé ne bëgguñoo ñoo wàññi mandat. mais population il sera obligé mu dem 2019. waaw bëggunoo wàññi. waaw bëggunoo wàññi mais moom su fekkee ni moom dafa bëgg mille 2017 te man xam naa ni ne 2017 a ko gënal man moom laa yaakaar. Hmm. population yi ni ko mën a jàppalee mooy référendum bi teg ñu wote 2017 su ko yàlla. su ko fi yàlla jëlee ñu xam ne yàllaa ko fi jëlee su ko yàlla nee mooy faluwaat ba deux mille vingt deux ñu xam ne moo war a faluwaat ba deux mille ñun ñu ñaan yàlla su boobaa de façon que ça soit deux mille dix sept que ça soit su fekkee ni yàlla dafa nar a jox keneen yàlla noonu ko jox ñun su gënee ci ñun gën ci réew mi mm-hmm. waaw. waaw léegi bëgg naa ñu jàll ci beneen ponk muy euh, mbirum lamin Diack. Euh, mu yëkkati coow lu bari ci ci réew bi euh, waaye dafa lu mu déclaré euh, ne lu journal boobu Le Monde bind. Mhm. ne moom kat xaalis ba nga xam ne jotoon na ko jël ci Russie. Mhm. opposition sénégalaise bi ak ñenn ci société civile bu Sénégal ñooñi la ko jox ngir ñu xeex ki nga xam ne mooy di Abdoulaye Wade jamono jooju ci opposition la la fekk. waaw d' abord man xam nga affaire boobu. wax boobu dafa crédible pour man xam nga tax. Hmm. li ni moom la jël un mille un million. d'euros. un million cinq cent mille euros xam nga loolu ñaata la mëtu sax un milliard dafa mën a fal kenn sax maire waxante bala ak ay président de la république ba nga war koo séddalee ay opposition man pour man dafa crédible wax boobu un milliard cinq cent lu ko nit di doyee dafa mën a fal kenn xanaa kon réew mi ñëpp taxaw nekk candidat ah, wax ba ca PV ba lañ nekk waaw non wax ba même su fa nekkee su ko neexee nag Lamine Diack tey suy ni woon xaalis Sénégal Lamine Diack nit ku baax la def lu teraanga yu ne ci réew mi di nit ku baax Lamine Diack war naa mën a liggéey sax un milliard cinq cent su ko indi woon ku mu jox doo fa nekk di contrôler fu xaalis bi jóge parce que un milliard cinq cent su ko séddee su ko séddee opposition kenn da ci am cent millions c'est que sénégalais ñun ñun ñoo bon ci suñu bopp ñoo soxor ñoo amul esprit de solidarité de partage Lamine Diack ay teraanga la def ci réew mi même euh, le monde tout le temps mu def erreur am na am na ay équipe bu football yu ko xawma Barcelone la xawma yu ko porté plainte bërki démb ba mu fay ay truc donc aujourd'hui même man nañ ko jiiñ jiiñ seen citoyen dara muy ku mel ni Lamine Diack nga xam ne c'est un sage lu baax lu ne def na ko fi ñu seet nu ko mu mais profito ci ku nekk di ko pamti pamtee di wax dafa rafetul ci suñu der dañu war a bëggante te man dama gis Sénégal yàkkamtiwunu lu dul un Sénégalais bu juum wala bu def musiba ba revue de presse ñu revue de presse ko wala ci journaux yi ñu of ko yooyu la ñuy waxtaane te ñi koy waxtaane ñëpp ku ci ne Lamine Diack defal na la teraanga tey ñooy wëlbatiku di yàq deram di jéem a salir famille am pour xaalis boo xam ni du xaalis du dara un milliard cinq cent. waaw de problème bi du xaalis bi du xaalis. du dara problème bi mooy origine u xaalis bi. non non origine parce que dañ ne ci corruption la jógee. non mais d' après li ma dégg doom ji wax ko corruption amu fa et puis euh, man. ah doom ji li mu wax wute nag li bàyyi. waaw waaw d' accord. mais man mais man damay suturaal sama kilifa damay suturaal un les sénégalais surtout koo xam ni yàllaa ko suturaal yàllaa ko teral. même su erreur amee nañ ko jéem teral jéem ko suturaal mais doo ci jéem a profito pour fàtte démb fàtte lu baax li mu defoon démb lépp pour bëgg yàq deram bëgg a yàq deru njabootam mais Sénégal corruption corruption xanaa kon ñëpp ñëpp am nañu problème kon Sénégal lu fi nit laal ñu ni corruption mais le président Macky Sall fii lañ ko fi ji ñoon ni dafa taxas xaalis or que lépp c'était foo c'est du faux keroog ba muy dem police ñu ànd ba commissaire ba enquêté enquête dara lañ ko doon wax ay sos la ñu sosal ko kun dul sotal fi amul nit ku baax la ñuy bañ a gis sénégalais ki nu bëgg mooy solaar bi ki bon ki nga xam ne tekkiwul dara kooku la ñuy bëgg bis bu commencé tekki dara ñu salir ko ni kii ku bon la koo xam ne mësula tekki dara ci réew mi nangam nangam jege président yi nekk ci président di di wax di wax lu dul dëgg di truc ba perturbé sax xelu président bi mais yooyu la nit ñi war a bàyyi nit ñi nañ bëggante nan am esprit de solidarité et de partage xam ne ñun suñu doom yi ëllëg ñooy sëy ci seen biir ñu delloo ci xel yi te xam ne yàlla noppi na nit mën naa def soxla bon nga raxas ko entre famille en famille la ne eggagunu nag fii tubaab yeeg yooyu egg yi nga xam ne dañuy defante xëy na ñoom egg nañ foofu mais ñun Sénégal dëkku jullit bii dëkku sëñ tubaab dëkku Maam Alaaji Malick ah, dëkku ñaseen yi dëkku laayeen yi loolu xajul ci suñu dëkk. waaw mais nangu nga ne Gaston. Mhm. xaalis bi nga xam ne war na servir pour financer ay partis politiques. Mhm. wala muy financer ay société civile war nañ xam fu mu jógee nag. mais képp ku nekk candidat man kaa wuti xaalis feneen say xarit kenn xamul fu mu jógee ku dem ba takku pour nekk candidat rek da nga dem say xarit muy ca États-Unis ak France ak. te say xarit xamoo fu ñu jëlee seen xaalis. non doo ko xam yow tey soo soo bëggoon a nekk soo doon candidat mhm. Gaston candidat la may am sama 10 millions wala sama 2 millions yónnee la ko doo fa ne doo sax am jotu di ba laaj foo ko jëlee. ndax ah, boo fekkee man de ma de mosaguma gis benn candidat présidentiel fii ci Sénégal ak feneen. bu expliquer xaalis bi mu demee campagne fu mu jógee. mais doo ko doo ko tal. parce que su boobaa yow yaa ngi nekk candidat yoroo dërëm parce que doo sàcc sàccoo fa nga nekkoon da ngaa ñëw nekk candidat pour defal sa réew ñu euh, say xarit jox la ñu ne ñu leen laaj foo ko jëlee. soo ma laajee foo ko jëlee ma ne delloo ma sama yëf du ma la wax fu ma ko jëlee delloo ma sama rek man dama doon def lu baax soo ma ci naree enquête nag delloo ma sama xaalis am naa feneen fu ma ko def c'est la même chose mi ngi mel rek ñun ñuy tëgg la am dem di wuti sponsor sponsor bi jox la xaalis mu ñu koy wax xaalis ñu jot chèque bi ba dem suñu yoon. waaw lamb jooju sax yaa ko tudd am nga mbirum Lamine dafa am leneen lu nekk ci suuf mooy dopage bi nga xam ne am na ci sport te ñu doon wax sax ne lamb ji. am na doppage mhm. euh, yow looñ ci mën a wax ci loolu. dara parce que ñun amuñu moyens yi CNG a beau beaucoup fait liggéey na bay bëgg a dee mais dopage du c'est pas une petite du lu ndaw ay moyen la laaj. Tunisie rek ko fi am ak Afrique du Sud ak ay pays développés yi c'est des milliards. mën nañ koo waxtaanee nii nag ak di sensibiliser sportif yi pour bañ koo def parce que baaxul mën na la rey mën na yàq sa carrière mais pour toog di def ay contrôle beeg yooyu mënaguñ ko def. mais CNG kon li mu doon wax ne dina contrôler. non eh, dana jéem jéem na ko. waaw jéem na wut sensibiliser na sax pour euh, xëy na su mënoon am benn aide ku nu mën a indil euh, des appareils de contrôle et tout ça. Mm-hmm. mais amaguñ ko dëbb ndox nag weesul nax sa bopp. foo ñu bàyyi dëbb ndox ñuy wax li nu attan ak li nga xam ne capable nañu pour def ko loolu ñun capable guñ pour def. bu ma la déggee daal. Sénégal wala CNG ci boppam. amagul moyen yu mu. contrôler non dopage ci làmb. xam nga moyen yan la am. yi wax leen dëgg wala leen leen que lii daf leen di rey sportif yëpp sax lii mën na leen rey lii mën naa yàq seen carrière ku dégg jëlee ci njariñ ku déggul la ci dal loo ci góobee gar ko. waaw mais am na beneen problème ci làmb ji parce que dégg nañ temps yi. Mhm. yéen promoteurs yi ngeen taxaw ne <laughs> amatu leen xaalis boo leen def ci làmb ji yenn somme yi. mbër yi laaj ay cent million amu leen ko. am ñu ne làmb ji dafa am leneen lu ci raxoon muy blanchiment d' argent. Ah, maanaam xaalis boo xam ne rek dañ koy dugal ci làmb ji ngir mun koo fóot mu doon xaalis bu set waaw baal ma <laughs> <laughs> baal ma daanal mooy amul na fi mooy amul na boo baal ma daanal léegi euh, xaalis boo xam ne daal dañ koy dugal ci làmb ji ngir mun koo fóot mu set loolu la ñuy wax tubaab di wax blanchiment d'argent mhm. xëy na da cee rax ba tax na bi contrôle yi xawee gën a sévère tuuti Euh, ak maal euh, peut-être président Macky Sall ak euh, ay OFNAC ak yu mel noonu. Mhm. xëy na yenn promoteurs yi mënatuñoo tëgg làmb yu am doole noonu. ak xaalis bi ñu ci daan def mënatuñ ko cee def moo tax yenn promoteurs yi bëgg a ko yow looy tontu foofu. man d'abord yàlla xam ne xaw ma luy blanchiment d'argent xaw ma nu koy defee mosuma jege blanchiment d'argent mosuma jege drogue maa jóge ay affaire visa maa jege dara xam nga man lu ma daan def. dem ak samay relation mm-hmm. wuti sponsor ku mel ni orange rek daan na ma jox plus d'un demi milliard par an mm-hmm. comme man nag esprit de solidarité de partage laay dundee man moom laa xam xaw ma leneen lu ma am dama koy séddoo mm-hmm. ci laa jëkka d'abord ak Tigo laa ko jëkka defee ñu jox ma deux cent millions ma ñëw séddale ko mbër yi ci laa defee woon CLAF 2006 fayandoo mbër yëpp vingt millions mbër yoo xam ne mosunoo fayu un million ban ca jógee ma ñëw ak orange ñu dem ba un demi milliard yeneen ay crédit mutuel ay AXA ay euh, Patisen et tout ça di ma jàppale nga xam ni daan dajale plus deux milliard ma ni bon xaalis bi nag mbër yi ñoo ko moom ci laa yóbboo làmb ci cent million tasaare leen ko mais erreur bi ma def mooy que su ni dama jël nombre xaalis booba diviser ko par cent millions def ko nombre de journées mais defuma ko sponsor yi dañ ma signé loo dix journées ma signé dix journées te ay mbër yoo xam ne da leen teg ko en 2010 par exemple sama année de feu boobu nga xam ne dama ni rek saam xaalis bi teg ko jox mbër yu mag yëpp avance mu wóoru la ni cinq combats yi rek milliard ba jeex na day fay mbër yi cent millions ak cent vingt cinq millions ak quatre vingt millions te sponsors yi fayagul la dañ lay avance parce que ñoom il faut ñu sécuriser seen xaalis yow yaa fa mujj di obligé di dem ci banques yi di leb ba nga xam ne saison bi tëjoo dana fekk nga ameel banques yi ay trois cent millions quatre loolu man su fekkee ne loolooy blanchiment d'argent man kon man euh, noircir naa sama xaalis man sama euh, alal dama ko noircir. déet waay waaw parce que <laughs> dama jiital. xaalis sponsor bi dem lebi banque yëpp far la ma ci yaakaaroon amul. Mm-hmm. day perte sama xaalis su ma demee ba mënatuma nag mais ma am na ngoru taxaw di mënatuma sacrifier naa sama njaboot sacrifier naa sama bopp man am naa droit arrêté dégg naa sax mbër yoo xam ne ñu ngi wax ni su ñii danoo mënatul suñu mënul nan dem ñeneen ñëw mooy ñii daal dee na li ñeneen ñu leen. loolu bokkul ci ngor. waaw mais comme comme comme comme mënatoo. waaw mënatu ma. waaw bul plafonné cachet yi. non plafonné wuñu ko parce que kenn mënu ko plafonné mais ku mu neex nga ni. man lii laa man plafonné wuñu woon mbër mi su ko neexee mu ni indi ma bëri su ko neexee mu ni du ma bëri ci lii coow du jib jarul xaste jarul jarul euh, teg nit ki lu mu teguwul. jarul di ko manqué de respect parce que tey li nga nekk tey mbër mi ginnaaw yàlla ak yonent bi promoteur bi. moo moo def ay sacrifice takk fitam ñëw ba nga nekk li nga doon ginnaaw yàlla yonent bi ñoom ñëpp ku ci ne xam nañu fa nga jóge ku ci ne xam nañu fa nga del fa nekkoon ku ci ne xam nañu la nga daan liggéey ne xam nañu daal la daan liggéey du ma sax nekk yi àgg mhm. mais ku ci ne xam nañu la nga nekkoon waaw mais loolu loolu sax moon euh, ci sama gis-gis mhm. est-ce que du benn erreur boo xam ne xëy na def na ko xëy na am na lu ci baax mhm. fekk koo xam ne da daan dawal saret kenn ki nekk maçon kenn ki bëggoon nekk sax agresseur nekk ay vigile far nga ñu nga dugal leen ci làmb xëy na ñun doon tey ay millionnaire xëy na loolu am na côté bu baax mm. waaye li tubaab di wax l'arbre ki cache la forêt mm. tey xale yëpp màbbeeku ne dañoo bëgg nekk mbër mm. loolu aussi seen erreur la yéen yi nga xam ne li tubaab di wax vendre de l'illusion dangeen ngeen a jaay illusion sénégalais yi bu rëy sax man dama déggoo man la làmb lu ko yàq maa ko gën a yàq je l'assume mais ci erreur la ko def parce que tey xaalis boobu ñu doon jël di ko def ci làmb jël benn journée benn takkusaan rek nga dépensé deux cent cinquante millions pour benn takkusaan bi deux cent cinquante millions nga mën cee ubbi société tey xoolal Sénégal kër goo dugg am na am na maîtrisard wala bachelier kër goo dugg nit ñi investir seen doom yi fayal leen i jàng fu ne ci université privée yi université bitim réew yi partout sunu ñibbisee duñu mën a am sax stage parce que nag état mënu la def lépp il faut nit ñi jàpp ci mënul mënunoo am sax stage yow nga jël ay cent millions di ko séddale ñoo xam ne xëy na bon seen wërsëg la wërsëg ñëpp ko am ku judd rek am nga wërsëg bu nan yi wax kii wërsëg la wala kii dafa iñaan iñaan amu fi waxante dëgg fi am man tam papa investirul ci man dara ah, musuma jëndal crayon musuma jëndal ardoise ma bëgg bañ cinquante millions cent te tey ñoo xam ne tey investir et ñii état investir na ci ñoom ñii seen papa yi investir nañ ci ñoom alal ju dul jeex mënunoo am loolu mais dañuy dem ba étudiants yi sax ak ñiy jàng dañuy wax ni nan bàyyi jàng mi ndax dañuy découragé. ah gannaaw 5 minutes 10 nekk millionnaire. et que et problème mooy. waaw wax ne lamb ji dox na lamb ji dox na mais fan la doxee. sur plus de cinq 5000 licenciés millions yi ngay dégg ñu koy séddoo matuñu waay. ci seen erreur la ba tey. ba tey erreur la déggoo man la ñun lépp ñu na ñoo tooñ. 5000 mhm. licenciés ñiy séddoo ñi ñuy wax million matuñu waay te ñiy fayu ay cent 500000 ak mille ñoo gën a bëri sax ñu ne. kurpe ñi leen dal dalul ñee suñu jógee ñu nii. waaw Gaston dafa iñaan Aziz Ndiaye dafa iñaan ban iñaan lan la ñuy iñaan suñu iñaan noonu kay ba nu amee la nu am dañuy dem yemale ko ci suñu bopp wala ñuy tëgg ay combat yu ndaw parce que li leen di tëgg fan combat cent mille yi ma doon tëgg cent millions yi mënoon naa ko tëgg ay combat dix millions ki vingt millions làmb ji dox ba pare ma am ci xaalis du ba ay bor du ma ci fekk te ay bor rek laa feese del yàlla nag mooy suturaal nit yàlla nu yàlla suturaal ci ñun liggéey la ñu xam bor yeeg yëpp de façon yàlla li ma wax sànq ni ba may jógee Louga ñaari ganaar laa fi nekk ëmb gerte liggéey fi tey ba su ma doon ñibbi lu ko tey ay 1000 conteneurs samay bagaas xaju ci noonu laay fas yeneen yéene liggéeyaat ba fay bor yëpp delluwaat ñu seet beneen yoon lu may liggéey di dinaa xam fu may teg sama tànk néew ma ni danaa bàyyi làmb ji parce que yàlla rek a xam lu nit di bàyyi mais tey su ma doon duggaat ci làmb projet yu wóor mooy tax ma dugg ci projet yu dimbali mbër yi mooy tax ma dugg ci projet yoo xam ne tey dana mbër yi danañu ci gis bopp mbër yëpp nag mais du ma seet rek ay lu mat juróom benni mbër wala fukki mbër pour teg leen fi comme nii ñu bëggoon a defee teekaat bii ñu bëggoon def man ak Aziz Ndiaye avant may dugg ci studio fan yëpp ñu ngi ciy waxtaan loolu loolu répétition erreur yi nga daan def la waaw moo tax ma ni jël ay millions yu bari dajale ko ñeenti nit jëm déggoo ma ne la su may dugg ci waat ci lam waaw bi ma ci réfléchir depuis dix jours yi ni may réfléchir ak yeneen i yeneen i projet laa ciy duggee beneen système laa ciy duggee boo xam ne mbër yëpp dañ ciy gis seen bopp mm-hmm. yi gis ci seen bopp mais ci laa xalaatee ni Aziz lii coow li bari na yabee la ngi bëgg am ku nekk ngi wax ku jóg tey koo xam ni yoram mësula dépense sax ci làmb dara ay àndandoo mbërëg parce que mbër yi amunuy xarit ay fans la ñu am moom musiciens yi am amunuy xarit ay fans la ñu am kenn du leen ñemee wax dëgg loolu nan ko teggi ka teekaat bii ñu ni pamti pamte nii am nañ leneen lu def man pour man nan ko bàyyi mu jeex mm-hmm. ñoom ñu wuti seen wërsëg yàlla na ko yàlla jox yàlla na yàlla ubbi seen wërsëg ñu nit ñu dem liggéey suñu liggéey pour jéem difficulté yi ñu nekkoon yooyu ñu jóge ci mais daal man bis bu ma yàlla dimbalee ba may duggaat ci làmb dinaa ci dugg ak benn euh, beneen système boo xam ni réew mi yëpp doon ñu gis seen bopp écurie yi gis seen bopp mbër yi gis seen bopp waaw mbër yi nga xam ne nag gagné nañu ay millions ci li nga xam ne moo di làmb ji euh, xalaat la nii a ah. est-ce que xalaatoo ne ñoom war nañoo mën a jël seen xaalis investiraat ko ci làmb comme ñoom nee nañu ñun yoratuñ dara tëgg seen bopp ñoo déglu rek ñoom nee nañu ñun yoratuñ dara ñoom yor nañ tëgg bopp ku ko ci tëgg doo am 5 millions que ñoom c'est les premiers ko ci tëgg doo am 5 millions am na ci mbëri bëri làqatu nañu tëgg fi combat wala ñu associé promoteur tëgg combat ba nu paree fayuñu 10 millions du ma tudd kenn mais am na fi de mais loolu kenn du ko wax moom kay dañuy fekk nii nañ fekk benn parce que li ma président Alioune Sarr waxee làmb bu affaire dof la ku wér dof la ku wér génn. ku wér pare ci. waaw ku wér a génn parce que xam nga ni yëfu dof moo man xam nga damaa dofoon. déet jëli jëli ay centaine de millions ko def ci làmb ca la romb di jay di la tagg xaalis Fambooj Babacar Fambooj gudul jeex. man ma bëgg su ma sañoon maay gën sa war a liggéey loo xam ne sa papa liggéeyu ko fi woon samay maam liggéeyoon ko fi woon amul lu lay taggee lu lay xaalis Fambooj tamit maam la nu mais damaa bëgg a def lu gën li tamit maam defoon. ay ca bokk voilà. Mhm. waaw léegi nañu waxtaanee football <laughs> nañu waxtaan ci football bi. Mhm. parce que euh, dañ lay féliciter d'abord parce que gis nañ ne Ndiambour euh, bi sixième journée bi jeexee euh, jël na première place. Mhm. ah ñu la ciy féliciter. muy lu am solo waaye ni la Ndiambour jege daal dafa mel ne équipe nationale jegewu la noonu. Ndiambour Ndiambour jig na ñëpp Ndiambour Ndiambour xam nga ne da ngay da xalaat na Ndiambour yàllaa ko teral président Abdou Diouf Louga la dëkk. président Abdoulaye Wade Louga la dëkk Djily Mbaye Louga la dëkk Ndiouga Kébé Louga la dëkk Amadou Matar Mbow Louga la dëkk Khalifa Sall maire Dakar bi tax Louga la dëkk dañu ñoom yëpp hmm. yàlla moo yàgg teral njaamur sëñ tubaa jaar na njaamur Alaaji Malick jaar na njaamur njaamur Louga yàlla moo leen teral tey yàgg dem na fi ba dem fi Coupe d'Afrique njaamur xanaa gars yi dañu ko fàtte rek hmm. lii du première ci njaamur El Hadj Diouf papam El Hadj Diouf papam Pulo hmm. Louga la dëkk dëgg la dem nañ fi Coupe d'Afrique Ndiambour yàgg naa am succès yàgg naa am victoire yàgg naa am ay honneur toog nan nag yàgg ci Ligue 2 bi pendant huit ans ñu nekk ci yàlla suut suturaalaat nañu ba mu ñëw bi mu ñëw ne maa ngi ci sant yàlla parce que sama loxo la jaaree mais Louga gépp ci jàpp may dellu di gërëm waa Louga leen sant di leen wax rek ni nañ yokk unité bi parce que lugo unité muy waa diaspora bi parce que diaspora bi lu kaa fa ëpp jàppu jàppu jàppu ëpp muy ñi nekk ndakaaru kenn bañ a nekk Samba Allaar Louga gépp xam ni ñoo moom équipe bi équipe bi santul Mbeng santul neneen équipe bi Ndiamour la sant ci le dénominateur commun de la ville de Louga c'est le Ndiamour ñëpp bokk ci ñu ñëw defar euh, même keroog bi ma Macky Sall yi recevoir maa ngi koy brosser ni ko euh, président jox nga ay club oto ak cinquante million te njaabur na mooy du ko Abdou Diouf il faut que jàppale leen il a promis de le faire je sais qu'il va le ah il faut que def lu ko jar. waaw ña koy def et puis fii def lu ko jar def lu ko jaram fii que ñun ñëpp xam nga équipe euh, football professionnel dafa jafe. c'est des emplois plus de deux mille emplois le football professionnel. deux mille emplois moom la football professionnel créé. nit ñi di ci liggéey. sama laaj kay ci euh, fédération. mooy ni la njaambur ni la njaambur jigéen ci laa jëm ci laa jëm. équipe nationale bi dafa mel ni jigéewu la noonu. ci laa jëm Amadou. ayca. Eh, football professionnel bi il a créé plus de 2000 emplois tey dans ce pays là. ci yi ci Sénégal yëpp ñu ngi football. football amateur football national national 2 professionnel ligue 1 ligue ñu ngi ci football bu njëkk équipe national aare nga daan gis mu bokk ci compétition yi tey ñu ngi u ñu ngi u u ak senior fépp fédération tax na ba Sénégal ñu leen fay représenté yëfu équipe nationale c'est bien vrai c'est la c'est le miroir du football sénégalais ñëpp doon def ne équipe nationale équipe nationale mais fédération bi li ñu liggéey li ñu liggéey dafa ëpp sax moo tax ñuy wax ñëpp te ñi fi wax ñoom ñëpp ku ci ne jaar nga ci fédération 2002 bii ñuy wax ban fa jógee fii la Youssou Ndiaye taxaw def discours xas ñëpp. tam fi ay nit dem jiñ leen sàcc ku fi mas a jaar rek te ñuy wax ñëpp koo fi gis muy wax rek jaaroon na fi mais tey comme ñun ñëw nañu fay bor yi ñëw nañu tey ñu ngi liggéey buggunu sax ñu àgg foofa wala buggunu ñu réussir ñuy fakastal ak di sànni ay pot de banane comme jikkoy sénégalais. waaw yéen à part U20 ban résultat ngeen am. Euh, euh, championnat d' Afrique euh, Jeux africains yi ñoo ko jël médaille d'or ba te tey. à part boobu ban ngeen am ñu ngi organiser équipe bi équipe yi ñuy dajal yëpp ñoom dañuy organiser. ay échec rek ne dëgg man tuddeewuma loolu. dem ngeen euh, Guinée équatoriale Amadou tuddeewuma loolu échec. ñu ne leen démissionné leen. tax ñu jiitu Gaston Mbengue ci ma Gaston yaa jiitu euh, Augustin fii ci réew mi. ñoo àndandoo ñoo àndandoo dem ci télé dem ci télé yi. pour ah. wax suñu bopp te Sénégal yëpp xaar ngeen jébbal lenge parce que defu leen defu leen résultat bërki démb rek Macky Sall Sénégal ko fal ak 68 pour cent waaw léeg nga gis ay opposants yu taxaw di ko wax démissionné pour quelle raison muy démissionné waaw ah, loolu politique la mais lii yéen da ngeen non sport aussi politique la da ngeen deful résultat dama ni lépp loo gis politique la mais defu résultat mais mais kan moo def résultat résultat weesuwul di liggéey sa réew nekk di defar di organiser tey ñëpp gis seen bopp tandis que gagné nag moom rek la ñu bëgg yàlla noonu ko yàlla yàlla noonu tamit danañu parce que ñun ñu ngi liggéey liggéey bu tax ñu war a gañe xam nga ni keroog U23 bi lii ñëpp gis yéen yéen sax da jaaxle ngeen. Hmm. gañe match gañe match ba ci ñaari match yu mujjee ñu man équipe yi ñëpp xam ne ñoo man mënuñoo fexe ba dugal di raté penalty yi. mais kenn xamul lan la bon du ma ne affaire mystique. affaire non problème encadrement la ak ah, problème ah, moral. mais pardon parce que xale yi il faut ngeen encadrer leen moralement. encadrement weesuwul. waaw jël la pendant deux mois dugal la regroupement. Hmm. jël la prime yi ci war yëpp ñu joxe ko. may gërëm au passage le ministre de sport li ci mat yëpp parce que ñun fu nu mas a ànd ak moom aussi day mel ni du ministre day mel ni ku bokk ci fédération bi ñooy bokk fu ñuy tëdd ñooy bokk fu ñuy lekke ñooy bokk fu ñuy wax euh, muy soutenir fédération bi di génne xaalis U23 bi dem nañ ba démarré ko état génneegul woon dara fédération ko génnee ak ay moyen boppam donc aujourd'hui nit ñi dañuy nekk ci biti rek ak bëgg a yàq lu fi nit tey jii tey suñu ne woon euh, Amadou fi def lii ëllëg yaay ordre du jour su dee lu bon su dee lu baax nag duñ ko wax dana duñ ko de lu baax li kenn du ko wax parce que ñëw nañu engagé wu nañu les trois premiers matchs on a gagné on a fait un résultat plein ñu ñëw demi-finale bi man équipe bi muy Nigéria raté penalty mais kenn loolu lu ci encadrement man lan la ci encadrement man encadrement mënu ci dara ñu ñu dem match de classement mu nekk copie conforme mel ni match yi dañ ko photocopier même chose su fekkee ni man man gëm naa trop mystique de mais teguma ko sax ci mystique mais su fekkee ni mystique la gis nga sëriñ si nag sëriñ sëriñu Sénégal yi wala sëriñu ñi leen dóor. non sëriñ Sénégal yi laa wax. ah bon d' accord. dama ne xam nga sëriñ Touba. Hmm. ñoom maam El Hadj Malick hmm. xam nga tey lu tax yàlla suturaal leen suturaal seen njaboot. Hmm. sëriñ Touba ak ñoom maam El Hadj Malick mosu noo soxla dërëm bëgg seen réew. loolu defoon di liggéeyal seen réew. loolu leen yàlla faye tey tey Touba soo demee gis ñoom ay Tiwaawoon tey nit ñaa leen fay fekk seen ñoom jariñu wuñ ci woon mais seen ay doom a ngi ciy jariñu réew maa ngi ciy jariñu ndax réew mi jàmm rek nga fiy dégg moo tax képp kuy jéem a yàq suñu réew mii wala di jéem a yàq suñu football bi suñu sport bi wala di jéem a yàqante ci suñu biir su la ko yàlla fayul fayuwul fayulul nit ñi ci sag dund dana ko fayu ci sa njaboot. yow da ngaa yaakaar ne dafa ruumandaat ah, ci suuf non di yàqal équipe nationale bi. mais mais fi ngay liggéeyee sax da di liggéeyante fi ngeen di sax da ngeen di liggéeyante kon liggéey du fa am dee au lieu ngeen liggéey bu dee au lieu ngeen liggéeyante. liggéeyante a liggéeyante tey poste tey entraîneur ba wala directeur technique wala kenn ñii ñu jël ku nekk ngay liggéeyante pour bëgg ñu jox la poste poste bi nag kenn ko mën a yor muy poste président de la kenn ko mën a yor muy poste ministre ministre bu ci ne poste ba kenn ko mën a yor nit ñi nañ gëm yàlla delloo ci seen xel xam ne ku ci ne li nga war a jot su jotee yàlla dana la ko jox mais di reyante ci suñu biir di liggéeyante di yàq Sénégal képp ku fi yàq réew mi yaay yàqu soo yàquwul sa njaboot dana yàqu waaw defe naa kon sénégalais ñun sénégalais ñoo war a xoolaat. ñoo war a xoolaat suñu bopp te bàyyi suñu fédération. waaw léegi balaa <laughs> fédération moom xam naa. waaw bu dee yaa ngi fi gars yi daañu ko bàyyi. ah suñu ko bàyyiwul suñu waxee ñu wax rek parce que tey ñi ciy wax ñëpp ku ci mas naa jaar fédération. mas naa jaar ci football waxtu wi xoj ñu dama bëggoon rek balaa ñuy daaneel. ñu waxtaanee benn acte boo xam ne kii di entraîneur bu bees bi muy Aliou Cissé teg na ko. Mhm. maanaam jëli kii di El Hadj mhm. boole ko xale yi mu saafoonte ak ñoom entraîné ak ñoom motiver leen Euh, te gis nañu diggante El ak fédération ni mu meloon mu doon acte boo xam ne sénégalais yëpp kontaan nañ ci looñ ci mën a wax. Euh, fédéra El Hadj ak fédération musul mel nen euh, ñàkk déggoo fépp lay am sa biir kër sax da ngay toog yow ak sa jabar sax da ngeen toog léeg-léeg du ngeen déggoo foofu fépp lay am El Hadj avant avant Alioune ñëw ca temps où je man mii fekk na ma méridien ñu toog ñu waxtaan parce que sama doom la. man ak papaam ñoo doon tëddandoo ñoo daan ànd ñoo defandoo lépp mooy yóbbu ko ba ci Augustin Senghor ñu waxtaan gindoonte El Hadj Diouf dem ba Gorée yendul Augustin Senghor dem football fa sax match booba Alioune Sèye mi ñëwagul bi mu mujjee jóge ca réew ma mu nekk ba mu ñëwee man mii la woo ñëw ba sama kër wax wax ju rafet bëgg jàppale booy jox ma exemple ci Zidane ni muy jàppale équipe de France ma woo Augustin Augustin rafetlu ko moo woo Ablaye Sow Ablaye Sow rafetlu ko ñu invité ko mu ñëw parce que El Hadj Diouf dafa defal lu ne réew mi nag jox na ay satisfaction yu ne même su masee juum ñun ñëpp masanoo juum xale la mais su demee noblesse weesuwul sax reconnaître sa erreur ñëw bëgg a defar say bëgg a toppatoo say rak noblesse boobu la El Hadj am ñëw pour defar ay rakam mu ñëw demander ñu ni ko amul benn problème mu ñëw ci entraînement bi ci Aliou Cissé moo ko Aliou Cissé ñoo bokkoon équipe nationale Fadiga mi ngi foofu ñoom Tony Silva ñoom Lamine Diatta ñoom ñëpp ñu ngi ci équipe nationale bi parce que ay sénégalais lañu yu bëgg Sénégal eh, ku mas juum baal nan la et nit sama papa dafa ma daan wax nii Gaston ànd ak doomu président de la république wala ànd ak doomu milliardaire mérite amu ci da fekk koo xam ne yaa ko tane wala nit ñi dañ koy daw nga ànd ak moom fexe ba mu mel ne yow la mu gën la foofu la mérite am. El Hadj Diouf c'est noble affaire noblesse la def ay rakam la i ñaanewu leen bëgg na leen a jàppale mi ngi leen di jàppale ñun Sénégal nan ñaan yàlla ñun ñëpp ñu nekk ay noble ñu àndandoo jàppalante jàppalante bañ a teg rek politique pour say intérêt bopp tey gis naa damay waxtaan un jour ak euh, le premier ministre par exemple mu ni ma Gaston man Macky Sall sama xarit la dañu yàgg a liggéey poste bii ak mu teg ma feneen laa yemale sama xarit la dama koy jàppale gis nga ne Habib Thiam meloon ak Abdou Diouf nu ko raw laa mel ak Macky Sall ma xam ni kii di koy noble la noble noonu lay mel mais taxaw ni man ñu jox ma post boo xam ne dama ñëw pour yàqal kilifa gi man du ma ko jël su ma ko mënul amee du ma ko amee su ma ko mënee defaree na toog ci wetam nag pour di waxtaan ak moom di ko di teg ci yoon di ko wax dëgg comme ni comme ni mu koy defee moom na ko ku mel ni yum di defee ñooñu man d'accord naa ñooñu ñu mel noonu te it su ma sañoon ñu mel noonu même opposition beeg yëpp noonu la ñuy mel suñu biir ñu toog di waxtaan di euh, di jéem a jëmale réew mi kanam ba mandat yi jeex màndaa yi nag su jeexee bis bu yàlla bis bu fi yàlla jëlee Macky Sall yàlla na ko jox Malick Gakou réew mi loolu lay ñaan yàlla. Mm-hmm. bis bu fii jëlee Macky Sall rek Macky Sall suy passé témoin yàlla na ko passé Malick Gakou mhm. waaw Gaston Mbengue euh, waxtu wi xoj nañu. Mhm. Euh, football lañ terminé nga tëjee ko waat ko. politique politique bi ñu doore woon waxuma. Mhm. pour nii dañuy dañuy ñun séyuñu ci benn parti demuñu APR demuñu fenn ñoom ay xarit lañu ñoo xam ñaari chef de parti lañu. ba ñuy ànd man xaw leen ñoo xam ne ñuy defante mais daal na nit ñi xam ni daal Sénégal gii il faut nit ñi. am culture wu xam ni da jiital d'abord mbokk gi respecter kilifa diine yi fi nekk et tout ça ñu jéem a nekk benn jéem a liggéey Sénégal pour mu ne pour mu jëm ca kanam. ça message c'est message de Gaston Mbengue pour 2016. ñu bàyyi la ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw li may tàggoo. waaw <laughs> mooy que nit ñi nañ jiital xel yi kenn bañ mere kenn. parce que parti bee la bokk wala parce que lii la bokk su fekkee ni tooñ naa kenn ci wax ji wala froissé naa kenn na ko baal sauf que li ma fàtte wax rek ci politique bi di ko ñaan Macky Sall mooy di ko ñaanit sunu vieillard yi sunu vieillard yi ko wër nan ko nan ko yeewi nan ko yeewi ñoo ni ko mag yi sunu doom nga ñun mag lanu ñu dem former benn comité de sage toog su leen mag soxla demande dem taal otoom dem ba seen kër demandé conseil mais nekk fii di xëccoo place rek lekk euh, jël buum nun koy waxee waxeeti euh, lekk pépp lekk pépét seen doom yi fi ñëw ak seen jarbaat yi danoo soxla ci place yi te ñoom depuis avant 1960 ba léegi ñu ngi fi nañ jàppale Macky Sall ñu libeere ko dem toogi ci kër ya nekk ay sage bàyyi xale yi xale yi vision bi no am ñoom amatuñ ko parce que ñoom ils sont dépassés. sont périmés. xale yi moroomu Macky Sall àndandoo ñu liggéey su Macky liggéey ba jax yeneen moroomam ñëwati ñu ànd di liggéey ndax réew mi léegi dépassé na ay mag mag même man mii sax réew mi dépassé na ma 65 ans koo dund mais nag nan ngir yàlla ak yonent bi man am naa doom joom âge wu président de la république du ko mën a nekk joom âge wu nekk candidat mais nan xajal xale yi nan xajal suñu doom yi encouragé leen mais mënuñoo ñëw buuxante ñoom mag ñi màggat ñi buuxantee buuxante bay bëgg dee ñoo bëgg a buuxanteeg seen doom yeeg seen jarbaat yi nan am xel mi nan nan nan dimbali Macky Sall ñoom ñoo ko mën a dimbali dafa yaru mënu leen a dàq mais nan am xel mi dimbali ko ah, retiré wu dem je pense que le message est bien entendu euh, Gaston Mbengue donc gërëm nañ la sant nañ la mm-hmm. yéen tam mbokk téléspectateurs yi ñu leen di fàttali rek suñu invité tey moo doon euh, Gaston Mbengue Gaston nag membre la ci grand jóge na parti socialiste léegi léegi ma nga ca grand partie bi nga xam ne kii moo ko jiite di Malick Gakou nekk itam président bu club de football bi la Njàmbur waxtaane nañ li nga xam ne moo di football waxtaane nañu tuuti làmb waxtaane nañ tamit li nga xam ne moo di politique te Gaston facette politique am tey defe naa am na lu mu ci wane lu bari ñu leen di jox dox daje euh, dimanche bi di ñëw euh, ci beneen numéro amul na boo bu ko faral di waxee nag amul na boo fii la lépp di leere ba tax na bu ko kenn tardé jërë ngeen jëf